nuyu dinañ jaar yéen ñi ci Ross Sport ñu war a ñëwaat ci benn vidéo wax ci Jovenel Diop bi nga xam actuellement mi nga vacance en Sénégal nekk xale di foog ñoom franchement mu nekk loo xam ne image bu rafet la mais laata ñu ñëw ci loolu dañuy wax de yéen ñi gan ci page bi da ngeen abonné te ngeen bës ko notification bi pour nga suñu vidéo au taaral fii ci Ross Sport sama gars yi Jovenel ah, mi ngi noonu ah Jovenel Diop mi ngi noonu problème mi nga vacance nekk Sénégal franchement di foog xale ah lii day war ne kii pire le patriote la bëgg la waaw suñu xol na ci bu baax ci ñëw gi mu ñëw ndax franchement su bëggoonu Sénégal wala amul fu mu teg Sénégal mën nañu wax ne guddi yii de du ñëw Sénégal waaye naam day li muy metti métti ak li muy jafe-jafe Sofiane Diop am na courage ñoo fi nga xam ne mooy Sénégal malgré defuñu sélection ci moom mais nag euh, xëy na bis dina ñëw yow Sofiane Diop nga sol li nga xam ne moom mooy équipe Sénégal mais nag pour mu gën a yomb ci yow génn nga def déclaration nga wax Sénégal mooy sama pays maa ngi rêve pour sol li nga xam ne mooy mooy Sénégal ndax nit du am complexe te en même temps nit day nekk li nga xam ne mooy patriote ndax da nga ñëw ci réew mi noonu nga war a gëm da nga war a bokk ci ñiy porter équipe nationale Sénégal ndax Cheikh Diop xamal leen ne ñoo goo Sénégal mais réew mi yëpp la bëgg ñoo leen ñoo réew mi yëpp la sopp ñëpp la naw ndax boo xoolee képp koo ci fol day réclamer sa sélection kon yow war nga sagal ñi lay kaasal pour nga def benn acte yoo xam ne ba ngaa ñëw Sénégal te loolu jàpp naa ne guddi yi nga ko war a mën a ware yéen ñuy suivre rapport amoon leen ngeen commentaire ngeen partagé di joxe ndax ñoo bokk mbir mi dañ koy paacoo pencoo ko mais kenn du ko paacoo ndax ku nekk rek war nga ci mën a gis sa bopp yi ñuy suivre notre merci beaucoup am ngeen jaajëf bu baax a baax